fu ma dem ci àddina daal ñu naan Khalifa Mbaye Serigne Babacar turam siiw na waawal dafa ma dem ci àddina daal ñu naan Khalifa Mbaye waaw waaw Serigne Babacar turam siiw na Serigne Babacar si boo bëggee ñu xam la way ko mbaa ci àddina dina daal ñu naan xalifa mbay. waaw waaw Serigne Babacar. turam siiw na. Serigne Babacar tudd na mbay. tudd mbay amul morom Seydi Mbaye amul morom Seydi Mbaye amul ah, du seen morom xalifa Mbaye amul morom yéen laay wayal Seydi Mbaye amul morom ah xalifa Mbaye morom Seydi Mbaye amul morom Seydi Aboubacar turam siiw na waaw wallaf ma dem ci àddina daal ñu waaw waaw sëñ Babacar turam siiw si boo bëggee ñu xam la way ko mbaaga way wayam boo bëggee ñu xam la way ko mbaaga way wayam boo bëggee ñu respecté la wayal Khalifa Mbaye bëggee ñu naw la wayal Khalifa Mbaye boo bëggee lo ne turam siiw na maa ngi nuyu ñëpp man maa ngi jóge Ndar Ndar laa dëkk mais maa ngi jóge ba dakaar ñëw di ziar suñu sëriñ bi si Malick dakk rek dara man amuñu ko dul moom kontaan nañu torop tey suñu xol féex na suñu xol sedd na vraiment kontaan nañu kontaan nañu ndax bu ñu ñëwee rek jàkkaarloo raw du sëñ Babacar Si rek suñu lépp luñ fi ñaan yal nañu ko yàlla defal si dara ji Seydina Mouhamed man nag sut Alaaji Tijaan Ñaŋ laa pour xam Alaaji Tijaan Ñaŋ xam sëñ Babacar kooku moo ko woyoon yàllay tëni moo ni woon yow yàlla maa ngi ñaan sa barke yal naa nekk daal sëñ Babacar di ma sol yàlla maa ngi ñaan sa barke yal naa nekk lal sëñ Babacar di ma sol kon ñun amuñu dul sëñ Babacar ndax dañu nekk ay xale juddu ci tarixa Cheikh màgg ci yaru ci di ñaan yàlla yàlla saxal ñu fi lépp lu ñu fi ñaan ñu ngi ñaan si daal di Seydina Muhammad yal nañu ko yàlla nangu si barke Sëñ Babacar Si kontaan nañ trop tey suñu xol sedd na jërëjëf. tudd yow. man Maguette Diop laa tudd. waay Maguette Diop. tudd dëkk Parcelles Assainies. Mhm. ñëw rek di ziar sama sëriñ xalifa Babacar. moom rek moom ma fi indi moom laay ñëw ziar sax mhm. kii damay xam nga toog nañ deux ans yoo xam ne. kii amul gàmmu amul mhm. moo tax tey na ñu profité ñëw ci ziar bi pour ñu ñëw ziar suñu sëriñ Khalifa Malick yaa na leeram yokk mais ginaaw ñaari at ndax euh, ziare wuñu ndax mbas mi. tey ji li fi teew nekk ci doomu aadama daa mel ni ñu bëri dañoo namoon Tiwaawan. tey kay moom macha allah tey moom bu bari na nit lool. Mhm. neex na lu fi waaye ñaan yal na ko yàlla nangu ci barke sëñ Babacar bi ñu yaakaar ñun ñëpp lu fi waaye ñaan yal na ko yàlla nangu ci barke bis bi tey. Mhm. barke ziar général bi. Mhm.